lorsque nous avons écrit au président de la République, mm. et tout ça, on l'a expliqué au Khalif, on lui disait réagissez, parce que Franck Timis a déjà vendu 60% de ses participations, mais il reste 30%. Mm. On peut mettre la main dessus. Réagissez, le temps presse. Il n'a rien fait. Les 30% ont été vendus par Franck Timis à BP. Franck Timis a obtenu 140 milliards de francs CFA. 140 milliards cash. Mhm. Plus des royalties sur 40 ans. Évidemment, la BBC dit il y a milliards. BP répond non, c'est pas possible. Mais BP dit effectivement il y a des royalties. Mais ça appartient aux Sénégalais. Ce que Franck Timis a encaissé doit revenir aux Sénégalais. Ce que Franck Timis va encaisser doit revenir aux Sénégalais. C'est ça la vérité, c'est pour ça que nous nous battons et je pense très sincèrement que nous avons obtenu une oreille attentive. am na luñ ci mën a dabu amoon na liñ ci mënoon a dabu bi ñuy bind président de la République en 2016 jëfu ca dara waaye tey jii ma wax ak yéen am na ba tey luñ ci mën a dabu ndax dafa am loo xam ne mu ngi ci xelu sénégalais yi xam nañ ne njuuj njaac am na duñu nangu mu des fileeg ñeent fukki at duñ ko nangu sénégalais yi duñ ko nangu kon nañu defar li ñu mën a defar dabu li ñu mën a dabu jàmm ne ñooy pétrole bi bu ñëwee gaz bi bu ñëwee ku ne am ci sa wàll ndax dëgg la mu ngi président la république mi ngi oote consertation maanaam ëllëg naka la ñu war a def ba pétrole ba gaz bi ne nañ ko waaw loolu sañ nañ ko sañ nañ ci waxtaan loolu moom lu am la waaye ndegem démb teguwuñu ko ci yoon nañu defar ba noppi fondation bi la. nañu defar fondation bi mu leer. ak itam am na loo xam ne li taxawal nañ ko démb te bépp ci boppam nangu na ne fileeg ñeent fukki at dina am lu mu jur jëmale ko ci Frank Timis mais Frank Timis courtier la Aliou Sall bi ko doon liggéey sous courtier la. li Sénégalais yi moom li Sénégal moom na dellu si ci Sénégal dellu si ci Sénégalais.